tey yëglekaay yi li ñu xëyee euh, Cheikh lañ ci àndal Cheikh maa ngi lay nuyu di la ziar mbaa ci jàmm. ñu ngi yàlla baax a baax soxna Naata maa ngi lay euh, fay euh, nuyu sama naataango yi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau bi nuyu mbokku téléspectateurs yu télévision Futur Média yi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu ci yële jamono. Mm-hmm. blanc bi rafet na macha allah <laughs> ñu tàmbalee ak ñu door ak l'observateur ak lëñbët yi nga xam ne itam daal dina koy def ci mbirum bijoutier wile doon wuyoo ci turu nga xam ne itam dañu ko fekk mu daal di faatu ci li nga xam ne euh, moom moo di aw euh, ndaamaram jàppal na itam l'enquête bi euh, ma ngay wëy ki nga xam ne moom moo di soxnaam itam doyen des juges bu tribunal bu pikin daal na koy déglu ñenn ci ñoo xamante ni itam njort nañ ne mën nañ cee indi ay leeral ñoom itam daañu amlante ak wàll yoon baat ak tontu ay bés yi nga xam ne moom lañu ñu dëkkmal ci loolee nag di door présidentielle atum vingt quatre ñi nga xam ne ñoom ñoo féetee ci kujje gi ndax jàppal ma jàpp la ñu nemmeekuwul ci ñoom am déet ndax itam ku ci nekk ci ñoom euh, mi ngi rek bëgg wëyal samp li nga xam ne euh, moom moo di euh, saw ndënd leneen ci loo xamante ni bokk naa ci xew-xew tey di téeméer ak ñeent fukkeel bi ak ñetteel bi yoon appeluk Seydina Limaamu Laay al Mahdi appel retentissant à la sérénité lu ni mel la rek dal di xëy fësal mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page six bu xët bu njëkk bu groupe Futurs Médias wi lee keneen koo xamante ni itam xamle nañu ak moom suñu naataangoo l'observateur bokk na uh, ci uh, soxna koddu uh, waykat la nekk itam sët ci ki nga xam ne moom moo di cinquième xalif bu Baye Laay leneen ci loo xamante ni mënees na koo jukki soxna naata bokk na ci wàllu caada moom Kumba Gawlo xam nga ne nag boobaak léegi toog na lu yàgg te itam dégguñu baatam ngi mu daal di wéy jàppal na jafe yi nga xam ne amoon na ko lu ni mel daal dina koy bàyyi dina ci li nga xam ne moom di bi du lu yàgg dara lépp lu euh, ñeel itam li nga xam ne moom moo di requête bu leader bu euh, Pastef dañoo rek daal di dàq lu ni mel moom Ousmane Sonko euh, ci la jamono mel na ni ku nekk ci aw néeg bu tëju ràpp ñu otali beneen ab yéen kaay muy enquête dikkaat ba tey ci langue politique bi fii ci réew bu Sénégal mu ñeel présidentielle atum lu flou artistique la rek daal fësal ci la jamono maanaam li nga xam ne leerul bari na soxnaata ci ñi lee nga xam ne ràññee nañu leen lool ci langue gi xalifa Khalifa Ababacar Sall ak itam ki nga xam ne nag moom moo di Karim Meïssa Wade ba ci njiit bu réew bu Sénégal ci la jamono moom président Sall ñu jàll ci le quotidien le quotidien dikkaat itam ci li nga xam ne moom moo di euh, gouvernance bu euh, BIDC le Sénégal euh, poussé d'or mu mel ni itam daal mel na ñuy lu du li nga xam ne nag moom moo di wàll wi jàppal ni Ghana Côte d'Ivoire ak itam Nigéria mettent en œuvre leur forfaiture lu nu mel na rek daal di xëy fësal moom le quotidien ak leneen ci loo xamante ni fësal nañu ko mu ñeel suñu jàmbaar yi lee ca Mali jàppal ni itam ndaamaar ba ñu yebbu woon moom moo rek daal di jaar ci aw ndell ba tax na itam ñetti ci ñoom daal di ci ñàkk seen bakkeen juróom itam am ci ay gaañu gaañu yu métti leneen ci loo xamante ni mënees na ko jukki ci le quotidien page 3 bokk na euh, ci wàllu euh, procès en diffamation les vérités de Madiambal à Téliko lu nu rek daal di xëy fësal ginnaaw le quotidien mm, le soleil lu mu xëyee tey jii le soleil li mu xëyee tey bokk na ci appelu Sidina Limaamu Laay al Mahdi xamle nañu ak góor gu baax gile nga xam ne itam li mu euh, joto def euh, ci duniyaa dootul fay benn yoon tax na itam ñu daal di dikkaat bu baax a baax euh, ci lépp lu ñeel li nga xam ne itam moom moo di jaar-jaaram le progrès n'est pas possible sans la lu ni mel itam bokk na ci loo xamante ni ay kàddu ko Issa Thiaw Laay la mu ngi ci li nga xam ne moom moo di le soleil national ginnaaw lu ni mel suñu mbokku chrétien yi nga xam ne itam door nañ li nga xam ne nag moom moo di koor gi jëmale lu toll ci ñeent fukki fan yoo xamante ni des na ko jaamu yàlla bu baax a baax coopération bilatéral le roi du Maroc euh, à Dakar aujourd'hui euh, moom Mohamed Sis euh, xam nga ne nag ni ki tey jile ñu ngi koy xaar moo di Ndakaaru soxnaata beneen yëgle kay bu baax a baax ci mbirum li nga xam ne nag moom moo di kilogrammes yu cocaïne au large de Dakar xam nga ni itam lu ni mel daal nañ koy gën a lëñ bët lenn ci loo xamante ñeel na lu ni mel daal nañ ci addu ci li nga xam ne moom moo di xët wu njëkk wu yéenekaay wile di Libération ñaareelu pàcc wi daañu ko gën a faram-fàcceel mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ci Facebook euh, moom la rek euh, daal di amaloon aw post ne rek euh, faw ñu rek daal di pendre kenn ci autorité judiciaire yi moom Demba Sakho xamal ne tam sûreté urbaine daal wala boo ko section de recherche dal di na koy teg loxo ci kàddu yi nga xam ne jot na ko biral jëmale ci li nga xam ne itam moom moo di xaral yu yees yi. ginnaaw moom Walf Quotidien. chamboulement ci li ñeel wàllu magistrature xam nga ne itam dogal boo xamante ni moom njiit mu réew mi daal na koy jël ci lenn ci ay tabb ndax lu ni mel euh, njortul ne mënees naa amal càcc ci élection présidentielle atum 2024 laaj la woo xamante ni euh, suñu naataangoo yu Walf Quotidien ñoom ñoo ko daal di euh, samp soxna naata ginnaaw Walf Quotidien ñu wutali mhm, ñu des ci les échos les échos itam ak kàddu ki nga xam ne nag moom moo di Lat Diop boobu ak léegi gis nga ne lépp lu ñeel wàllu fitna ci réew bu euh, Sénégal moom Lat Diop lëppul benn yoon ki nga xam ne euh, moom moo di Ousmane Sonko ndax jàpp na na yenn ci ay kaddu yoo xamante ni euh, ñu ngi koy yëkkati jëmale ci yenn ci ay kilifa diine kenn waralu ko ku jiit bu Pastef ak itam ñi nga xam ne ñoom ñoo di ay ñooñam jàppal leneen ci loo xamante ni mënees na koo jukki ci les échos recours sur l'ordonnance de li nga xam ne moom moo di renvoi Sonko débouté l'exception d'inconstitutionnalité rejetée lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne itam moom moo di euh, les échos mu ñeel mbirum li nga xam ne euh, moom moo di euh, Sweet Beauté boo ko déggee bokk na ci coow li nga xam ne moom moo ñeel Ousmane Sonko ak itam Adji Sarr ba tey li nga xam ne moom moo di pënd mi wureegul. Mm, bés bi le jour lu mu jour li mu xëyee bokk na ci chambre d'accusation rejette sa requête la défense se pourvoit lu ni mel daal di jukki Sonko joue la montre lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne moom moo di xët bu njëkk wu yéene kaay wile rawatina li nga xam ne moom moo di. page cinq Soxna Naata. Mmh, ñu dem ci leneen. ñu dem ci las. aywa laas dikkaat ba tey euh, ci li nga xam ne moom moo di appeluk euh, Seydina Limaamu Laay al Mahdi lenn ci loo xamante ni itam yëkkati nañ ko fa nikk démb daal di ci xirtal askan wu Sénégal bokk na itam ci wàllu jàmm fexe def kéem kattan moo xam euh, mbooleem doomi aadama ci fànn bu mu mënta féete mu daal di ci bàyyi li nga xam ne nag moom moo di waaram sononaata. Mmh, Vox Populi la ñuy def. Vox Populi ba tey dikkaat ak kaddu yu ni mel moom Seydina Issa Laye Thiaw kaddu yi nga xam ne daal dina koy yëkkati. jëmale ci li nga xam ne itam moom moo di euh, appel bi xam nga ne ni ki démb moo nekk bés bu euh, njëkk wi ñu ngi ko doon amal euh, ca diwaan bu Cambérène moom xalif général kullu murit Serigne Mountakha Bachir xam nga ne itam téeméeri million yoo xamante ni nag daal dina koy jagleel réew bu turc ndax itam jafe-jafe yëngu suuf wi nga xam ne itam moom moo fa am jàppal ne itam enveloppe bu ni mel daal nañ koy jox ambassadrice bi ni ki démb lañ doon amal lu ni mel mu ñeel njàppandal ak Cheikh Mountakha Bachir fa nga xam ne moom moo di ca diwaan bu euh, turc mm, ñu dem ci source a Cheikh ñu dem ci euh, source a source a itam leneen ci loo xamante ni dikkaat na ci mu ñeel yenn ci ay nomination à des postes judiciaires lors du dernier conseil supérieur de la magistrature des juges euh, devenus généraux lu nu mel la rek daal di xëy fësal lépp itam loo xamante ni ñeel na violence politique fii ci réew bu Sénégal bokk na ci li nga xam ne itam waxtaane nañ ko bu baax a baax ci appelu Seydina Limamou al Mahdi Yoff s'énerve lu nu mi ngi ñu tënk ci li nga xam ne moom moo di page 4 ginnaaw lu ni mel ñu wutali beneen. page bu njëkk le témoin. le témoin di kaat bu baax a baax ci euh, lépp lu ñeel yoon ak yoonal ci même réew suite judiciaire du rapport euh, de la cour des comptes jàppal ni itam euh, DUC lance la traque lu ni mel la semaine prochaine muy ay bés wi nga xam ne itam moom la ñu dëkkmal ci képp koo xamante ni njort nañ ne laale nga ci wàll wi wala bokk nga bokk ci ñi nga xam ne ay cëstaay lañ yoon dina amal di euh, liggéeyam. Sud Quotidien. Sud Quotidien moom jiit mu réew mi la ñu rek di def nataalam ci kaw mu mel ni ku sëpp ñenn ci ñoo xamante ni euh, ñu ngi féetee ci euh, kuje gi l'opposition à la merci du pouvoir mu mel ni dafa mel ni rek ku leen daal di ndengeñ moom njiit mi ñu daal di fësal itam ñeneen ci ñoo xamante ni ràññee nañu leen bu baax a baax ci lépp lu ñeen langue politique bi fii ci réew bu Sénégal Aminata Touré Ousmane Sonko Khalifa Ababacar Sall ak itam ki nga xam ne moom moo di Karim Meïssa Wade. ñu dem ci sport dikkaat bu baax a baax euh, ci li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, ñu doore ko ci li nga xam ne moom moo di Ligue des champions huitième de finale aller jàppal ni itam Leipzig peut-il résister City ak itam Haaland lu ni mel laaj la woo xamante Haaland laaj la woo xamante ni itam euh, daal nañ koy euh, samp ndax euh, li nga xam ne moom moo di Leipzig mënees na sëpp Manchester City ak itam Haaland waat laaj la woo xamante ni suñu naataango yu record ñoom ñoo daal di samp lu ni mel Ligue des champions ba tey Liverpool Real Madrid ñaari ball ci juróom lu ni mel la ñu rek daal di xëy fësal ci li nga xam ne moom moo di page huit bu record. ginnaaw page huit euh, bu record itam leneen ci loo xamante ni euh, daal nañ koy euh, waxtaanee bu baax a baax mu ñeel CAN U20 Mozambique Sénégal ni ki tey jilee la ñu xaar lu ni mel soxna naata bu 14 heures jotee mu mel ni itam bu ñaari waxtu jotee la ñuy rek amal lu ni mel lion lionceaux pour valider l'écart lu ni mel la rek daal di addu moom record hmm. ba tey ci stade. ci stade bu baax a baax ci Liverpool ak itam Liverpool refroidi euh, Anfield lu ni mel la rek daal di àddu le grand coup du euh, grand Real lu ni mel stade moom moo rek daal di fësal lu ni mel ginnaaw stade. ñu jeexal ak sunu lamb. rëkk xam nga ne itam ñeenti yoon yoo xamante ni dugg na ko uh, ca géejewaay saa yu fa déggee duggee itam dégg li nga xam ne uh, moom moo di daal yi maanaam uh, day am ndam xam nga ne itam war na mën a laale ak ki nga xam ne moom moo di Sa sax tax na itam suñu ay naataango yu suñu làmb daal di samp aw laaj ndax itam Sa da koy dakkal foofe wala bokk mu yemale ko fa am déet lu tëw ta xam jarta yàkkamti soxna naata pàcc wu njëkk wi nga xam ne moom moo ñeel yéenekaay bi xëyee nit ki tey yemook mercredi ñetti ñeenteel bi eh, numéro de la semaine ci seen émission info matin lan la a waxtaanee ci jotaay bi. Euh, mbirum suite beauté euh, Cheikh. merci beaucoup ñu dem euh, ñu dem voilà